برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجلفيد تيجان جخن نينان ci commencement bi la war nga xam ne léegi kursi léegi gannaaw sant yàlla ji ngi si yonent bi wa sallam mu ne dogali ku mbir yi dogal yëpp seen dogal ci loxo bi yàlla tabaaraka wa taala nekk te ci moom lay gongee ko maanaam ci moom lay jugee xiw gépp ak mu ci ngir yàlla tànn bu baax lépp mu ngi ci li nga ne moom la yàlla tabaaraka wa taala maa ngi sax ci Medina ci waxtu loolu bii maa ngi leen di dénk nag di dénk sama bopp ci fadlu fadlu mooy góorgóorlu joxe sa dayob kàttan ci def dara na ngeen fadlu ci waree fi diine yi mu mel ni laab am jàpp ci julli walla sang farata bu waree ak julli ci waxtoom yi ak wér doo wasifa ba tey ci seeni waxtu waaye ànd ak mbooloo ñeexal julli ñeexal wasifa ñeexal zikar àjjuma ak sàmm tam xàq ñi nga xam ne dañoo am xàq ci yéen ni ki xàqi waajur yi ku nekk xam na ne xàqi waajur lu kawe ba yàlla di ko méngaleeg fi muy waxee jaamu leen yàlla faray waxee na ngeen baax ci seen waajur abdullah laa tushriku bi shay'an wa bil waalidayni ihsana wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsana wa hakada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko kan moo gën a xëy kii laaj nañ kan moo gën a xëy ci man mu ne ko sa ndey maanaam sa yaay ak kan mu ne ko sa yaay ak kan sa yaay ak kan sa baay ak kan topp ku la gën a jege loolu la bàyyi di dénkaane ak xaq yooyu nga xam ne sàmm xaq képp ku am xaq ci yow ñu mel ni xaq ñaari waajur yi xaq say jege ñaare yi maanaam say eh, mbokk képp koo xam ne dañuy wax ne jege ñaare mooy koo xam ne dajee ngeen sax ci ñeenteeli maam léegi nag da gis nit koo xam ne eh, benn bàyyi ngeen dajee wala benn maam te jàpp ne sax mbokkam la sàmm ci xàq yi dëkkandoor yi nga xam ne xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko alquran dénkaane ko yonent bi taxaw na taxawaay sallallahu alayhi wa sallam bu yàgg ci ñoom lool ba saxaaba yi ne dañ koy yërëm ku yàggaay taxawaay bi ñëwee mu wax ne ndax xam ngeen lu ma taxawoon ñu ne déedéet mu ne Jibril laa taxawoon ak muy dénk xàq yi dëkkandoor Jibril dañu ko ñu dénk xàttu dëkkandoo ba foog ne dëkkandoo dana doon dëkkandoo am mu génne àdduna na ngeen sàmm ci xàqi taalibey cheikh yi sàmm ci xàqi mbooleem jullit ñi ñi jàng ñi ñi matale ak ñi jagleel xaas yeeg am ci biir xaas yi rawatina ci borom xam ci biir jullit ñi ak borom xam-xam ci biir tariqa yi ñoom am nañ wàccuwaay bu jagoo boo xam ne war nañ leen koo wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bokku ci ñun boo xam ne yërëmut suñuy ndaw yërëmut suñuy mag xamal suñ borom xam seen wàccuwaay laysa minnaa man lam yaarif man lam yarham saxiiranaa wa lam yuwaqir kabiiranaa walam yaarif li aalimina bokk ci ñun koo xam ne yërëmut suñuy ndaw waaye bokk ci ñun ndaw loo xam ne it wegut suñuy mag bokk ci ñun cim koo xam ne xamalut seen borom xam-xam seen wàccuwaay maanaam wàccewu leen seen wàccuwaay ndax borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi bàyyi na ngeen taxaw temm ci liggéey ngir fàggu lu dagan liggéey ngir ut lu xalaal loo xam ne ni dañ koy dundee ngir topp ndigal yàlla yi tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wax na ne lu gën ci lu nit dundee mooy lu ci ñaxam bu fekkee ne eh, daawuda daan dundee ci ñàkk yi loxoom kooku yonentu la te nekkoon na buur waaye ànd ak loolu mu ngi loo xam ne moom li muy fàggu moom lay dundee loolu yëpp pour xiir ci lu dundee lu dagal bu leen sàgganee wéral eene yi ci mbooleem yëngatu yi ak mbooleem jëf yi jaam danay sonn ci lu baax fekk mu ngi ko mu ngi mu ngi sàgganee ji te innama al amalu li niyaati wa innama li kulli mriin ma nawaa moo tax sunna yi naafile yi loolu yëpp jiital ci eene jokk bi ngay jokk sa mbokk sax ngir yàlla ngénte bu la yëgal sax nga ciy dem def ko ngir jokk mbokk buy sa mbokk la def ko ngir sàmm xaqi dëkkandoor ni sa dëkkandoor la boobaa rek du doo jëfi aada rek doo xam ne nii danga koy def xam ne boo demee ci ngénteem bu ñëwul sa ngénte yow perte nga dangaa demoon pour mu ñëw ci yow perte waaye boo ko defee ngir yàlla tabaraka wa taala boobu ci jaamu yàlla yi la nga xam ne bokk na ci naafilaay yi nga xam ne ba tey jàmmal na ci liggéey ba àgg ci dayo yàlla tabaraka wa taala bëgg ko na ngeen moytandiku gàttañ lu ci xàqi yàlla yi mu ne maa ngi dénk nag képp koo xam ne yaa ngi oote benn xaal ak yàlla xaal bu mën la ci xaal yi ku ci oote ab xaal rek ak yàlla maa ngi koy dénk mu saxoo fadlu maanaam góorgóorlu ci sellal bakkanam bi laabal bakkan bi laabal xolam bi ba xolam bi wala bakkanam du ko nax di ko wax ne ko ah yow kay fi ne nii àgg nga ci maxaamu góor yàlla yoo xam ne moom sax ngay sonn ci jàng loolu bakkan boobu ko waxee bu jaam bi mën a oote nag na wax ne majjub la na wax ne waasil la na wax ne aarif la na wax ne xutbu la na ne wax ne maqaama bu mu mën a oote rek amul benn maqaam boo xam ne nit def ci àgg tax nag moom daf doon góorgóorlu ci yàlla tey fa bàyyi ndax bu fekkee ne da ngaa wax ne sa dayo bu màgg ci yàlla moo tax li nga doon góorgóorlu ba nga ko kon dafa mel ni yow ba sa dayo bi màggee ci yàlla yow màgg yàlla màggatut ci yow yàlla nuñ gën a màggee ci yàlla gën a màggal yàlla tabaraka wa xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba nekk ci feebar bi nga xam ne mooy feebari am nga xam ne dafay dañuy nodd di ko xaar mu xëm ñu sotti ko ndox muy waaj xamaat ñu sotti ko ndox mu ne wax leen Aboubacar mu jiite nit ñi ba Aboubacar commencé julli mu mën a dem te dem boo xam ne dañ koy téye mu ñëw ba fekk Aboubacar mu ci biir julli gi moom it mu ñëw toog Aboubacar mujj di roy ci yonent bi nit ñi di roy ci Aboubacar loolu yonent bi rek sallallahu alayhi wa moom a nekk limaan juñu seetal xaal boobu ku dem ba àgg ci te joxuloo sa bopp ngant ana kan moo àgg ci dayob yonent bi sallallahu alayhi wa ci jege yàlla tabaraka wa noonu la sonne ci topp yàlla ba ci ay gendeeku yi nga xam ne nii moo mujj ci ay waxtoom naka noonu salafu saalix naka noonu saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibnu masud da wax na ñaar rek ñoo daan ñoo daan tardé julli farata naafeq boo xam ne ñoo daan tardé julli farata ci mbooloo naafeq boo xam ne ñëpp xam nañ ne kii moom naafeq la ak aji feebar wa in kaana al-mariidu yatahaada bayna al-isnayni xataa yudaa fi saf mu ne léeg-léeg daana gis xam ne dafa feebar waaye ñaar ñoo koy téye kii téye ko fii mu yukki yukki yukki ba ñëw teg ko ci safu boobu te loolu <coughs> ñun gis nañ ko fii dund nañ ko fii ay mag ñoo xam ne dem nañ ba tële mënatuñ dara waxuma la sax dëkk fii waaye ñu jugee fu sori pour ñëw fii xeeñtu li nga xam ne moom lañ doon dund ak dugg ci jumaa ji nga gis moom moo xam ne dañ koy téye bu liggéey sax du du du mën a du mën a taxaw waaye ànd loolu yëpp ñu ngi doon sonnee loolu te loolu na Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu xam nga ne loolu la dundee lii muy wax nii loolu la dundee xaal boo mën a oote ci yàlla du la sa bakkan bi su wax ne yow daal tey jii mën ngaa mën ngaa mën ngaa mën ngaa ñàkk julli wala mën ngaa ñàkk def naa nga mu ne laaj nañ Abou Qasim Junayd nga xam ne moom mooy njiiti tariqa yi mooy njiiti taaifati suuf yi lañ koy wax ndax njëkk njëkk cee ràññeeku ci sóobaate dañ koo laaj ne ko dafa am ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom farata yi waratu leen ndax farata yi daal ay jottalikukaay lañ yoo xam ne ñoom dañ ko doon def pour àgg ci yàlla tey daal àgg nañ ci yàlla moo tax ñoom dootuñ julli julli daal pour ñoom mu ngi mel ni si bi ngay jël pour àgg si Medina àgg si nga Medina jaama mu ne wax nañ dëgg ci àgg gi waaye àgguñ ci yàlla de saqara lañ àgg safara lañ àgg feneen wax na ne la wasalu maa rajaaw ñu àggoon duñ dellu te mu ne kuy sàcc di njaalo sax maanaam te xam ne lu ñaaw lay def moo gën kii wax kii kii wax lii ci jàpp ne moom tey ji moom dara waratu bàyyi ne bu ma desoon junne ji at du ma wàññi suma oral yi dara lu may loo xam ne ngàntal sharia moo ko waral nga dem na dama am mu koy ne te dem na ba nekk ci lalu dee mu ngi sàmmanteeg ba wér bu tijaaram te boobu téekuru sàpp mu bàyyi na na ngeen fatlu góorgóorlu ci tool yi boobu ñoom fi ñu nekk loolu rek moo doon liggéey kon mooy na ngeen farlu ci liggéey yi ngir yàlla fi yàlla loolu mooy dañoo jigéen gën a kawe mooy nga liggéey ngir ne yàlla dafa santaane liggéey walla mu ne nga liggéey ngir éene jullit ñi ak jaamu yàlla yi du jullit sax jëriñoo walla nga liggéey ngir fàggu nga ut yow lu xalaal ngir sa bopp ak say njaboot ku nekk ci kam martabaam ak déggam anillaahi tabaaraka wa ñi gën a dégg fa yàlla ñoo xam ne jaam bi dafa war a liggéey ngir yàlla ak santaane waaye ku àggut foofu nga war a àgg ci li xam ne tey am na ñoo xam ne gëmuñ diine sax waaye ñi ngi góor góorgóorlu ci liy jëriñ nit ñi mooy nga liggéey pour jullit ñi jëriñoo jaamu yàlla yu jëriñ boo àgg ci foofu alal aqal nga liggéey ngir ut lu xalaal lu dagan yow pour sa bopp ak sa njaboot kenn warta sàggan nag ba doo àgg ci benn martaba ci martaba yi mu ñu tudd

أربعة وخمسين ثلاثمائة ألف هجرية إنه سلام سليم لا لغو فيه ولا تأثيم يوم جناب ولدي القطريف الشريف المنيف الشيخان من أب يليه الإعلام بوصول كتابك المبشر بسلامتك وهي أغلى عندي وأتانا والحمد لله ونحن في سلامة وعافية وازدياد نعم ظاهرة وباطنة الحمد لله أما ما ذكرت من وصول المريدين فالحمد لله بازدياد الإيمان بالأمة أما حال الآخرين وما سألت عنه من كيفية التربية أعلم أرشدنا الله وإياكم أن التربية في طريقتنا بهمة الشيخ الختم التجاني رضي الله عنه الذي يقول من يعرفني يعرفني وحدي وليس على المقدم المأذون له بالتلقين سوى مجرد التلقين والتبليغ ما أمر بتبليغه من الشروط والآداب والمريد ليس عليه إلا حفظ الواجبات الدينية المعلومة الضرورة ضرورة وملازمة لوازم الورد واعتقاد أن الورد اللازم أعظم أسرار التجانية والنفر فيه ويلزم يلزم بعد ذلك ما أمكنه من الأوراد غير اللازمة بحسب ما أذن له ولا يريد بهذا إلا وجه الله الكريم لا دنيا ولا آخرة ولا مقاما من المقامات ويشهد المنة ويحسن الظن ويفوض إذا دام على هذا من غير غرض فليحمد الله دائما وقبيح في المريد وقادح في العبودية وعار كبير ورزيلة من رذائل النفس كونه يعبد الله ويذكره وينتظر بسبب ذلك الفتح اليوم أو غدا أو في الأسبوع أو في الشهر أو في العام فإن الله لا يستحق عليه أحد شيئا وهو يستحق العبادة بذاته ومن استبتأ الفتح فليتب إلى الله وليعلم أنه إن دام على عمله مدة عمر الدنيا وفتح لنا الحضرة تساوي ذلك وفوق وإن لم يفتح عليه أصلا كفاه الاشتغال بالله حتى يموت وليس على المريدين إلا حمد الله على كل حال وأما الإخوان فلم يبقى هنا وهي موم مامم بايم شيخ أحمد بن موكجور شيخ أحمد بن شيخ محمد الحافظ موكجور شيخ أحمد الحافظ ku nekk xam na ne moom moo jëlee tariqa bi ci faas jël ko Cheikh Ahmed Tidiane gannaaw bu mu daa jël moom ci acc ànd moom faas nekk moom juróom-benn weer mu jox ko ijaaza wax ko xebal ko nekk ko dellul boo demee nag bul feeñ ba yàlla feeñal la mu ñëw Mauritanie nëbbu li nga xam ne mooy mbooti tariqa biñ ko jox wanewut ne am na dara lu bees lu indi lu may ay téeréem aki kurusi zamzami addiyaay màkka rek ba am benn jëmmi bés nag am benn waaye daf daan gis xadir waa ji yàlla defal ko mukaashafa xamal ko ne ko cheikh Mouhamadul Xaafis mi dafa indi mbóot jëlee ko ci tukkeem bi mu ñëw di ko laaj mu koy wax di koy jox addiyaay tukki kurusi yeeg yi mu ne ko déedéet waxuma loolu mbóot mi la jox ne la bul ko wax fekk yàlla feeñalu ko loolu laay laajte mu xam kon ñu jot na ndigal pour feeñal tariqa bi mu jox kooku tariqa euh, ci guddi googu benn kër faraanut ca mbaray na gi nga xam ne fara neewoon amul benn kër ca gàdd ga lu may tariqa ba dugg na fa ci gis boobu guddi googu kooku moom moo tariq tasaare tariqa moo jox Mawlud Fall tariqa Mawlud Fall moo jox Abdul Karim Naaqil tariqa Abdul Karim moo jox Cheikh Umar al Fuuti radiallahu anhum ajmaina tariqa Cheikh Omar moom moo tasaare tariqa bi fii tasaare ko ba ca Nigeria ci Afrique yi yëpp moo ko tasaare waaye silsilaam mooy Cheikh Mouhamadul Xaafis moomu Cheikhaani mii nag Cheikh Abdou Xaafis moom mooy maamam daan na ñëw ci baay njëkk di ànd ak ay waajuram sax ñëw di laaj addiya fii waaye di ko jox addiya bu nga xamee ne Mouhamadou wulu nax bi nga xam ne mooy borom kër gi wulu saabaq Euh, wala rifati nga xam ne moo njëkk jàpp ci bàyyi ci waa Mauritanie dëkkandooram la woon nekk xaritam Mouhamadou dafa ñëw Sénégal ànd ak moom ak euh, ñëw fii ànd ak ab bàyyi taxam mu ñëw euh, boobu ci jamono commencement ba boobu bàyyi nga Kaolack ndax moom ci at bii feeñ ak bi ci la jàpp ci bàyyi nga xam ne boobu fekk guñ sax Kossy mbaas maa jàng ci moom xam-xam rek mais ci biir loolu ci la ko yàlla mu jàpp ci moom bu ma jàng tarbiya nag ba am fetxu mu bind leetar Cheikhaani boo xam ne daf ko léebu ci biir leetar bi aaytuma yen pawl yi aaw yaa anzu haza shajarun wa maa lu tax mu wax loolu dafay nettali koo xam ne dafa amoon ay gàttan ay ay ay ay bëy mu dem nag ba amatut àll bu mu foree amatut tim ah, fu fu ñuy naanee mu jàpp ne bëy mi daal dana dee ci loxo mu wanteer ko dem bi mu ko wanteeree dox tuuti nag mu gis këla gis och gis ma ñu commencé di ay suma man maa ngi yuuxu waaye luy luy yuuxu bi di jëriñ ndax fi ne nii passé na jaay naa suma gàtt yi te ndox maa ngi nii kii baa ngi nii kon bu ko wax ne ko ndox maa ngi nii ah, Euh, ndax maa ngi nii euh, gàncax gaa mooy xalifa kër Cheikh Ahmadou Xaafid ja boobu moom Mouhamed sax ci ay ay mbokkam waaye bàyyam def ci moom ci ñoom ngir ne mooy ci gën a ay waxilaafa moom mu day wax bàyyi ci moom ci ijaasaan ne ko suma bàyyi bu ma jiitalee fekk maa gën a ci ay doomam dama def suma bopp ne man seen taalibe la ñoom ñi def ma man may seen bàyyi kooku nag bàyyi ne cheikhaani noo fi rombee xalifa boobu ngay dem ne da ngay uti sëriñ te Mouhamed Saïd bokk na ci jox bàyyi lijaas bi mu tim mu ngi fii ci téere bi mu dem ci moom kooku ne ko demal sax te bul fàtte sa baay ji ci la ñëw soogu ci bàyyi tarbiya fii koo xam ne dañ daa ñëwoon ci bàyyi di ko laaj addiya ah léegi nga bàyyi loolu ñëw ci moom di jël addiya moo tax léegi naa dafa ma sa wax misiri ne ko ñun dañ doon ñëw ci bàyyi di joxe ay fukki junne yow nga ñëw romb yëfi di léegi déggal affaire bi ay ay téeméer ñun ñooy cosaani tarixa bi eh, saanit xaaj Abdoulaye ci boppam jaar na ci ñoom bàyyi ci boppam moom bàyyam jox na bàyyi lijaasa bàyyam ji ko jur jox na bàyyi lijaasa waaye bàyyam ji ko jur nag dem na ba mujj ñëw jàppaat ci nangul bàyyi jàpp ci moom ba bàyyi jox ko lijaasa Cheikhaani moom la bàyyi bind leetar bi bàyyi nekkoon na koo si jamono yoo xam ne ku nekk xam na ne boobu koo si neexut yoo xam ne da nga daan ñëw di laaj àddee ñu lay jox nga mujj ñëw di liggéey foofu dem nag namm koo si boobu ba toog Mauritanie doo ajaban duuna koo si kay fa julu si ba fu aadi ba man uxibu bi koo si ba bii fi madina qad kaana umsi wa irtiyaaxi wa raaxati wa aniisi walakin nafsu yaa madina fidaaun وفداء لكوسي من كل بوسي فنعب وحين وبمي أفديكما وربابي وبهندي أفديكما وربابي وبمي وزينبي ولميسي ولكن نفسي يا مدينة فداء وفداء لكوسي من كل بوسي قبل بنك موريتاني جنا من كوسي يوحنا نكلا يتوقع فوقني دي كوسي تكيمو بغ أكي سما قول بغ كوسي لنا يا خمنا مملا دون ويتلكو تمدينة أكشي كوسي ki nga xam ne mën naa koo jotee mën naa koo jotee jongama yëpp la mel la mën naa ko koo jotee ma ne koosi googu amutoon ay lekk yu neex mm-hmm. amutoon ay naan yu neex mm-hmm. waaye tudd yàlla jeex ci yàlla itteew yàlla soxloo yàlla ba xamuñ ndax àddina am na leneen xamuñ ne feneen am na xamuñ tim ne keneen am na lab nañ ci yàlla lab nañ ci sëriñ bi nga xam ne du leen yóbbu ci fenn lu ma yàlla tabaaraka wa taala ko si la doon jooy kooku nag moo dem ba dellu bind bàyyi leetar leetar boobu mu bind gisuñ ko buntu gëstu ubbeeku na waaye ci tontu bi ngay xam lem doon wax bàyyi bàyyi nuyu ko nuyoo bu sell ne lu jëm ci sama wàlli sama doom sang bu tedd chérif bu kawe cheikhaani mën na àbb man mahmoud la tudd ñu ko doon dàkkantele mën na àbb mën na mooy cheikh ahmadou mooy mooy maamam nga xam ne mooy doom cheikh mahamadul haafis àbb mooy ahmad bëddi ñoom ñaar ñooñu la bàyyi di tudd ci daayiratul matalib tarbiyati ahmadayn mooy ñaari ahmad yooyu mm-hmm. خليفه الشيخ عبد الحامد ديدوما كان واي خليفه بدي من قبل مولون خليفه الشيخ عبد الحامد الشيخ عبد الحامد فتي كي دوم الشيخ عبد الحامد كي دوم بدي من قبل موي خليفه الشيخ عبد الحامد بدي مولى تاني تربي من نيس من ما ورا جي دان دين كدومي دا نان نان خم دا كانت لي علويني لول ييب سي بونتو فونكو خم خم اك نه خم خم جاري نه سي نيو سي bu ñu waxee Cheikh bu ñu waxee mën na Cheikh Ahmadou lañ ci jublu bu ñu ne Abba Ahmed Badji lañ ci jublu ñaar ñooñu lañ dàkkantelee Cheikhaani comme ñaar ñooñu ñaari sëriñ lañ bu ñëwee ci Baye moom Baye tuddee ko Cheikhaani moom man ne ñaari ne ko ne ñaari sëriñ si tur woowu law Ahmed Mahmoud la tudd gannaaw loolu maa ngi eh, béggale maa ngi la yëgal ne jot naa sa leetar bi nga xam ne bégal na ma ci xamal ma eh, sa yaa ngi ci jàmm ak sa te loolu moo gën a foor ci man luy foor leetar bi agsi na ci man fekk ñun tim ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci aafiya guy dolleeku ak xéewal yi dolleeku ci zahir ak ci baatin ñu sant yàlla ci loolu amma li nga wax ne taalibe yi ñu ngi àgg ci yàlla bàyyi ne ko maa ngi sant yàlla ci dolleeku imaan ci ummatu muhammad kon nga xam ne euh, natijatu àgg ci yàlla tabaraka wa mooy imaan billahi tabaraka wa taala kon ne xamee natijatu maarifati billahi iqbaalu gannaaw ak xaali ñeneen ñi ngay tudd amaa li ngay laajte ci naka lañuy ñuy tarbiya déglu lool ji koo xam ne ma ngi lay bëggal ne la taalibe yaa ngi àgg ba pare mu ngi laajte ni ñuy tarbiya kon xam na ne àgg ci loxoyal sëriñ bi nekk mm-hmm. loolu tax bàyyi delloo ko ci yar ba gën a mag ne ko xamal ne tarbiyee ci yoon yu tariqa bi ci itey Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu itey Cheikh Tidiane moy tarbiya kan moy buural itey Cheikh Tidiane ba ag ci taalibe bi mu ngi melni nga ne jaasi je moy moy moy paake be moy ray gatt bi paake bi tëdd ne nga toog ni paake bi mo sa ray gatt gàtt bi waaw moo keneen ku mu bindil leetar wax ko ne ko tarbiya ci loxo Cheikh Tidiane lay nekk waaye bu mu la teree yow jàpp ci loxo taalibe yi ommat leen teg leen ci yoon ndax soxbatuna billahi ak jàngal ko teggin yi nga xam ne mooy teggin yoon bi gannaaw bu ko saye bi nga xam ne it jàpp na ci yooni tarbiya dara waru ko lu may sàmmanteeg waree fi diineem yi ndax moo jiitu ndax nit balaa wax ay tarbiya ak yooyu maa foog ne war naa sàmmanteeg li nga xam ne moom mooy julli yi ak li sharia bi waral tarbiya pour yaru rek la te loolu mooy bunte bi yar bi njëkk amul benn sëriñ boo xam ne da nga ñëw indi fi ay wirdo yoo xam ne dafay yar nit ñi ba pare fekk da dangaa oyofar julli boobaa moom jullit bi am am xel moom warta gëm ndax yarekat bi gën a màgg mu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñi tegal loolu ci yar bi la bokk mooy essence bi moo tax bàyyi ne kii sóobu gannaaw bi ñu ko sóobee li ko war li ci jiitu mooy wareef yi nga xam ne diine daf ko waral gannaaw loolu mu taqoo wirgo yi nga xam ne ay laazim la moo ko warul boppam lee daf laa war li nga warlul sa bopp boo demee bay jàpp ci li nga warlul sa bopp li la yàlla warul waxi na ki ko war a def képp koo dégg na dafa war a wirdu laazim wala dafa war a wasifa mooy ki nga xam ne dëgg xéwénal na farata yi moo jiitu sa julli farata yi moo ëpp importance bu fekkee ne yow booy wirdo doo mën a julli farata li gën ci sax mooy nga ñàkk jël wirdo topp ci sa julli farata yi rek da ñëw sa farata yi waa dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa laaj ko lan mooy lislaam mu wax ko shahadati la ilaha illa أنا محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلى الله عليه وسلم بيت مستعي عليه السلام من واجنا ينتج صلى الله عليه وسلم دم تشيوك دارا وعي دم تشواني دارا بمد بمد دو ينتج بنا أفلح إن صدق كده تحنا بفك وحنا دم كون كو أمون تشيو يرجع من قاعد تحنا كود أجر دم بأجر تبغى يلا كو كو يتوغو أي وردو ما وران جامي يدغو تطريقة يتوغو أي وردو du leneen pour indi lu bees du leneen wirdo yi fekk nga ko fi mu ngi ci diine ji benn jullit manta wax ne man de du ma wax astafirullah waaye yaakaaruma loolu benn jullit manta wax ne man du ma def salaat na ni benn jullit manta wax ne du ma wax laa ilaha illallah jullit bu neex na nga ne man warluwuma loolu comme yéen ni ngeen ko warloo hmm. waaye jullit bu mu neex tim nga warlu lu baax loo xam ne yokk ko ci baax yi nga doon def muy naafilaay yi mu wér la ne man nga cee tàggat sa bakkan bi def ko te mën naa am boo ko warlu wutoon doo ko sàmm te boo ko warloo dana tax nga sàmm ko te boo ko sàmmee daf lay dugal ci buntëb jëfee li nga xam ne danga koy jëfee sàmm ko di ko def bu set comme ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xayrul umuri adwamuha wa in la gën ci mbir yi mooy li ci gën a sax doonte dafa néew li gën a sax doonte dafa néew xam nga loolu farata yi taxut ñu koy wax ndax kenn mënta wax ne kenn du la wax ne ah comme li gën a sax te doonte dafa néew moo gën waaw man daal kon man euh, mën naa julli suba saxoo ko waaye duma mënti suba ak tàkkusaan waxuñ loolu boobu du wér ndax boobu amut tànneef amut choice da ko war a def par force la du sa ixtiyaar waaye li nga xam foo déggee li gën a wér ci mbir yi li gën a baax ci mbir yi mooy li sax doonte dafa néew loolu mooy li nga xam ne yow yaa ko coobaree sa bopp moo tax yow yaay xam ne wirdu tariqa tijaani bi du lu may astafirullah téeméer salaatu ala nabi téeméer laa ilaha illallah téeméer nga ne lii mën naa koo def bët bu set nga saxoo ko ngir bëgg yàlla ngir buuxante ci naafilaahi yi ngir tim saxal lu baax saxal wazifa saxal si juma moo tax mu ne gannaaw farata yi nga sàmmanteeg wirdu laazim yi nga fas fastim ne wirdu laazim bi tariqa bi moo gën a màgg ci mbooti tariqa bi yëpp ndax am na ñoo xam ne ñi ngi am wirdu laazim yi dañ koy sàgganee ñi ngi wër di ay ay mbóot yoo xam ne xamuñ ndax mbóot la xamuñ ndax leneen la xamuñ léeg-léeg sax duñ xam ndax lii turi la wala turi jinne la wala turi leneen la moo tax mu ne ànd nag nga fas ne guddi laazima tariqa bi moo gën a màgg ci mboo ci tariqa bi ku ci téye téye ko ci ni ko war a téye ci Ahmed Tidiane yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko ko dig ne borom du dee mooy mu àgg ci yàlla tabaraka wa taala te amul benn werante ne astafirullah jaam mën na koo wax amul benn werante inna salaata ala jaam mën na ko wax laa ilaha illallah naka noonu waaye mën nga ko xeebaay dem dugg ci yoo xam ne nii ci euh, la ko jox xamul sax fan la jógee moo tax nga gëm ne wirdu lazim bi moo gën a màgg ci mbooti tarixa bi nga foñ nag ci biir maanaam nga daw ci biir euh, lef moomu gannaaw loolu nga taqoo loo mën a takkoo ci wirdo yi nga xam ne duur laazim ci kenn niñ la ci joxee ndigal waaye loolu yëpp mu ne bu ci jublu lu may jëm yàlla ji tedd yi tabaraka wa taala bu ci jublu àddina bu ci jublu àlaaxira bu ci jublu sax maqaama ci maqaama yi na koo la ah, ci àlaaxira kon loo ci war a jublu yàlla nga ci jublu ndax yàlla dëgg-dëgg moo gën a màgg àlaaxira àlaaxira baax na lool ñi bëgg euh, wàccuwaay àllaaxira ñu baax lañ mais am na ñu leen gën a baax mooy ñi bëgg yàlla te boo amee yàlla da am maqaama yooyu danga am àddina da nga am àllaaxira moo tax ñoom dañuy yar jaam bi ci ne li ngay def yàlla nga ci war a ut ndax sa wirdo yi boo ci doon ut léegi dërëm euh, nga def ñaari yoon gisoo nga ne bi baax waaw boo ci wut sam ay e, e, gis sa bopp ne yaa ngi naaw ne nga capp dal màkk comme léegi gis ko ci téere gars yi nga def gisoo nga ne ah bii de mënul loolu kon naa baax waaw fekk wirdo yi yooyu yëpp taxu ko jóg wirdo yi li ko tax a nga buy dëggal ak njàngale mu ne nga boole ko lii muy wax nga xam ne wax na feneen ne mooy teggi ni tariqa bi nga xam ne ku bugg a jëriñu ci tariqa bi da nga koy tegginoo mooy ngay seedu may yàlla yi seetuma yàlla yi mooy lu sa jëf rafet rafet nga gis ne man yàlla moo def ba mu baax rek mu askan ma ko waaye man mënuma daal te loolu bu fekkee ne mën nga ko gis ci ustaas bi sax bi lay jàngal mën nga ko gis ci yàlla ndax léeg-léeg nit mën naa def examen ñoo ne eh man de matière nangam moom moom du baax tey mooy eh, oral bi fii waaw du yaakaar dara lu may. Mhm. Eh, proviseur bi yàlla na ko fekk rek. muy heure boo xam ne nii waa këram mer la woon ko kenn tooñu ko. Mhm. mu xool rek gis ne kii dafa jum waaye mu doon góor rek ne ne ko eh, bàyyi ko mu dem. suhudu minnati mooy nga gis ne yow li ngay def yëpp lu mu rafet rafet lu mat ak lu baax ci yàlla rek la mën mhm. loolu mooy suhudu minnati kon boo def boo defee ba mu rafet rek. nga sante yalla li ngay sante yalla moy yow mano amo yalla mi man am mo amal yalla mi nga xamne ne dafa mat mo matal ba pare askan lako gis ges nga gis sante yalla ci lool lool boko melé melee sa jëf lu mu rafet rafet lool dula nax do ci gis do gis sa sa bakkan bi way jeuf bu rafeté ba nga mujj di gis sa bakkan bi jappu ne ah man kay buñ dé rek ma len jullu kon gaay ma len leen am na koo xam jiwut wootewul ngëneel kenn loolu la lay gënee yow mooy nga ñàkk sukkandiku ci sa jëf waaye bu mu la teree jëf rafet njortu ci yàlla rafet njortu ci jaamu yàlla yi rafet njortu ci yàlla yàlla nee na man maa ci sama njortal jaam bi ci man inna ata ilaahi dafa wax ne min alaamati al ictimaad ala al amal nuqsaanu rajaa indi wujudi zëla lii tegtale na jaam bi sukkandiku ci mbaax yàlla waxtu wu fakkas la rek waxtu wu juumee rek dootul amati benn yaakaar ci yàlla loolu duhut pour oyofal ragal yàlla waaye pour oyofal sukkandiku ci sa jëmm nga yënkeewal nga joyal mbir yëpp ci yàlla balaa dara xew sa xaal mu ngi wax ne wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun ñett yooyu bàyyi nee na mooy teggi ni tarixa bi nga xam ne ku bugg a jëriñu tarixa bi dañ ko teggi mu ne bu taalibe bi saxee ci loolu ci lu duhut benn xarat beneen bëgg-bëgg bu muy bëgg na sant yàlla waxtu wu nekk mu ne waaye lu ñaaw la ci ab taalibe luy jam njaameeg jaam bi la maanaam luy wane ne kii mu ngi oote ne jaam la waaye dëggalul njaame gi gàcce gu mag la ñaawteef bu ñaaw la ci ñaawteefi bakkan yi nit ki di jaamu yàlla di tudd yàlla ngir nag dafay xaar pour am fatu tey wala ëllëg wala feeg semaine wala feeg weer wala feeg at waaw damaa bëgg a waaye kañ lay xam ne léegi loolu la léegi la xew ci ñaata fan laa ko mën a def waaw bi yàlla bi dóor fii ak Dakar koy utal ay fan nga utal ay masal waxtu wu taalibe dëggoo nag ci ut yàlla bàyyi ne dana ko fekk mu gën koo jege mu koy uti fi mu koy utee foofu la koy fekk te loolu alquran moo ko tegtale aman yujibul mutarra idaa daa boo dëggoo ci ut ñaan yàlla yàlla may la ko loolu ngay ut ci yàlla itam boo ci dëggoo dëggu bu nga xam ne àgg na ci dayoob dëggu dëggu rek fi nga koy buggee foofu nga koy amee lu tax nag muy ragalloo nit ki ne yaa ngi soobu ci tarbiya di bëgg ne ah man kay tey laa suba laa war a àgg wala gannaaw suba walla nangam parce que yow da ngaa jàpp ne sa effort moo lay may te mu ne yalla kenn eeyo eeyowut ci moom dara waaye moom yàlla dafa heeyo ñu jaamu ko ak jëmmam ngir ne borom la dafa heeyo ñu jaamu ko yow tim kom jaam nga dafa heey ci yow nga jaamu sa bo mu ne ku yéexal fatxu may man de tabiyana naa ba sonn daal waaye la waaw ñi nga xamne sa adina lañ bu ah man de wér naa ba sonn waye de bisuma dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla dana nangul kenn ci yenn ñaanam feeg yéexalut di wax ne daawatullaha wala mustajab di wax naa man de maa waaye gisuma daal loolu bokk na ci liy tax nit ki ñàkk am nangu ñaan da ngay xalaat ne man kay ñaanaguma rek nga war wax man kay ñaanaguma ndax sa caabi yi nga xam ne mooy sa caabi nekk changé wut sax boo ñëwee di ubbi bunt bi mu bañ da ngay wax ne xanaa caabi yi dañ koo changé da ngay gis ne man gisul ma caabi jox ma damaa juum jox ma caabi bi kon yow ubbeegul da ngaa ubbeegul moo tax bunt bi ubbeekuwut waaye yàlla moo wax ne bu ngeen ma ñaanee may loolu dëgg ñu bëri ngi wax ne ma am li jaaba ma am li jaaba ma am li li jaaba li ci jiitu mooy nangoo ñaan yàlla moo wax ne ñaan leen may la gannaaw gi nag mooy nga toog nga nga nga toggoo Euh, sàmmanteeg lekk lu dagan naan lu dagan sol lu dagan gannaaw gi toroxlu bi nga xam ne jaam buy ñaan wane ne jaam la te loolu yëpp ci sóobu ci ñi jëm ci yàlla ak sax ñu bëgg seen soxlaay boobu waaye mu ne ku sóobu ci yoon bi di wax ne man daal ba léegi maa ngi ci waaye àgguma loolu daal ñu koy def sax na nga tuubaa dellu ci yàlla na xam ne bu saxee ci jëfam yi jamono lépp yàlla may ko mu am fatxu benn gende dana ci xamee ne hmm. péeb yàlla bi jar na loolu waaye ëpp na loolu bu demoon sax def dundam yépp te ko maanaam ci nattale doy na ko ne moom soxla woon yàlla ba dee hmm. warut ci taalibe bi mu ne lu may mu sant yàlla ci xaal bu mën a yi ñi fi des rek mooy ñi nga xam ne dañ koy bugg a noor ah ku yàlla def ne xabrom fii la tim fii lay dee rek ndax boobu waa Mauritanie yi miinaguñu Sénégal eh, ñu bëri seen kilifa yi dañ daan bind leetar di tiit mbaa duñ fi feebar mbaa duñ fi nangam moo tax mu koy wax ne ku yàlla def ne fii la war a dee fii la war a dee xam nga uute na dem na ba fi ne am na ñoo xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñaan ne nañ dee ñaan yàlla ñu ko maa ngi ñaan yàlla ñeel ma ñeel leen ak mboole mbokk yi mu may ñu aafiya ak tim gërëm dogal yi yàlla yi wasalaam ci gën loolu mooy seen mbokk ki leen gudd Ibrahim doomi xaaj Abdoulaye Tijaani mu nekk suma sukkandikuwaay ci tariqa bi nag ngay laajte demal nga seet Kaashiful baas te nga dégg bu baax. nga dégg bu baax mooy am na ci loo xam ne ah, il faut nga il faut nga xam ne nga nga bañ a xem bañ a ci. mbind ci mbind yi rek ah, am na loo xam ne mën nga cee fay waaye ci bind yi ngay jaane ko ba fay baay bi allahumma salli ala sayyidina